asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh seen mbokk Ousseynou Sow dëkk Daaru Sàmb mooy jot jotli ay kàddu fii di liggéey bii nga xam ne yàlla jox nanu ko ci lu nu yàgg bëgg waaye lu jot rek yomb loolu tey jii moo dajale fii ñu déparé Fandène war a dem ba Daaru Sàmb ak dëkk yi dend moom ginnaaw loolu nag dañuy gërëm ñi nga xam ne ñoo indi seen matériel andi ak seen coono ak li ci war yëpp jox na ko muy transport jéey kilifa gi di Koli jéey ak Cheikh jéey ñooñu di njabootu amadu jéey bokk ci gox bi kon na ñoo leen di gërëm di leen sant ci taxawaay yi ñu am yërëm gi ñun yërëm ba taxawal lii tey ñu taxaw fii di ci wax di ko jottali di bëgg li tax ñu di ko def nag dañoo bëgg ñëpp ñaanal leen ñaanal leen ba nga xam ne lii ñuy liggéey ndax seen entreprise bii kat suñuy doom a ngi ci suñuy jarbaata ngi ci suñuy rakk ngi ci suñuy suñuy suñuy sax ñu ngi ciy liggéey kon nag dañuy ñaan lii nga xam ne mooy entreprise jéey bii di TAD ak TD mu re def re mu mu dem ba dem ci sous région bi dem ba dem ci euh, au niveau national ba niveau international maanaam ci biir réew mi bitim réew ba daj àdduna bi lii lañu ñaanal waa kër Amadou Dieye muy waa entreprise TAD ak TD kon xam ne lii du gouvernement bi moo nu ko jox déedéet entreprise privée bu ñuy wax TAD ak TAD TAD Amadou Dieye transport Amadou Dieye moo na ko defal defal koy mbokkam defal koy baayam defal koy nijaayam ak i maamam mu jóge Fandène jëm Daaru Samb ak dëkk yi ko wër ñu di leen ci gërëm di leen sant daray daray gouvernement bi nag bokk ci du lu jóge ci maire wala lu jóge ci gouverneur wala jóge ci sous préfet wala préfet déedéet entreprise yi ñoo jël seen volonté bopp ak seen alali bopp def ko ci yoon wi. tànk sax tànk xam nga tànk moom daanaka suuf mënu koo téye ci lu gën a bari waaye boo doxee fa daaru sàmb dem moo kër mbuudu ak kër xaar ak kër dembante jëm si fii da ngay sonn ci tànk lu tànk luy sonal tànk nag tànk di ngiroo ci suuf ndax bari waxaale woto waxaale welo waxaale wuñu moto waxaale wuñu te ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ci gox boobu de loolu mooy sunuy dema mooy sunuy dem demawaay sareet lañ daan demee sareet xam ngeen léegi si àdduna toll foo xam ne fii daanaka ñëpp ñu ngi demee ci ñeenti tànk ndax mbir mi gën a gaaw ndax zone boobu dañ fiy bay élèves yi nga xam ne dañuy jógee Daaru Samb ak Kër demb ak Kër Xaar ak Demooja ak Kër Mbuudu di jàng si lycée Fandène bii ñi ci gën a baax ñu ci bari dañoo mujj abandonné lu tax yoonu naqari yoonu metti yoonu sori liggéey laa tudd dëkk Demba yëkkati sama kàddu ci turu Baye Talla Dieye di chef de village su Demba yàlla dogal mu mu nekk ma nekkal ko Demba yoon wi ñu ciy dund xam coono yi ci jàkkonteel yàlla dogal ñu am yéene yoon wi defaru yàlla dogal famille Dieye ñëw tey pour defaral ñu yoon loolu sant yàlla lañ ciy def wér gërëm wax dégg naa ci Baye Mbaye Birane Ndam bu loo mu ne Amath Dieye bi mu indilee Baye Bàcc sàmm ay nag ba mu ko defaralee ba noppi dafa ne mbay Birane mu ne ko labbay mu ne ko Mbàcc Baye Bàcc mu ne ko Mbàcc mu ne ko yëg nga ni demoo jaa ma dese sama dëkk Amath Dieye moo wax loolu Mbaye Birane ak Baye Bàcc Mbaye Birane nekk li ma tey jii ñoom ña nga ca barsàq mais am na ñu fekke woon kàddu kon bu ñu demee tey ba Koli ak Seex ñuy defaral yoon wi sant yàlla sant leen ñaanal leen yàlla yàlla yàlla seen taxawaay. Mhm. amuñu lu dul suñuy kilifa amuñu lu dul kilifa may wax ci waa lu kilifteefu chef de village ñu ngi sant maire Talla Diagne mooy moo yore commune Thiénaba sant it maire Augustin parce que ci waa Daaru la ci waa Kër Demba la ci waa Demba ndax ñun ñii taxaw fii sama tante Baye Samba Gaye bi jur Augustin tudde na ko dox muy gii jàkk ji la fi maam Mor Mati Gueye defoon bàyyi bàyyi ma sàmb bàyyi sàmb gay bàyyi Auguste musulman la ko kon dëkk bi di dëkk famille demoo ja kër dem ba kër xaar kër dem ba benn famille ak fan ñuy sant it njëniw njëniw def na ci effort dox na ci ñuy sant it Pape Sow suñu mag la suñu wasee suñu kilifa la nu ngu naa sonn taal essence am guddeeg bëccëg mu ngi dox ci lu suqali dëkk te it mënoon na ni rek man fi laa bokk mais maa ngi kees parce que am na ñu fi juddoo yaroo fi man lu ne te duñ fi jaar kon nag bu amee ñu bokk ñu di suñuy kilifa mënoon a toog noppalu di taal moto di daw ak daanu ba lii ñëwit ñu ngi koy sant di ko gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatulah dëkk Fandène ah yoon wii bu ngeen gisee ma di ci dox di ci wax ànd ak ñii dima yërëm xale yi nga xam ne sax bu ñu wàccee deux heures wala quatre wala trois heures ñu nar a doxee fii ba ba déemoo ji ba kër dembante ba dëru sàmba ba kër mbubu wax dëgg si yàlla ku gis xale yi rek sa xol sa yaram war na daw te gis ngeen yoon wii kilifa yii ñoo ko tàmbali woon di cotiser ne dañoo bëgg lu nu defaral sunu yoon wi foofu la yoon wi déparé kilifa yi taxaw oo dëkk yi ñoom ñu toog waxtaan di def cotisation di def cotisation pour yoon wi taxaw yàlla mit dara tëxut Ousseynou mu baax mii mu bëgg a doomu aadama mu bëgg ay bokkam bëgg a dëkkam jóg ñëw ci entreprise bi di waxtaan ak ñoom di dox di ci dox guddeeg bëccëg ba ñooñu d'accord ni dinañu leen jàppale defaral leen yoon wi kon Ousseynou mii ku jara la ku baax la nit la ku bëgg bokkam la ku dëkkam la kon Ousseynou te yemul foofu moom toujours mu ngi daw ci lu defar dëkk bi lu jëriñ dëkk bi ndox mi manqué Ousseynou jóg na yoon wi Ousseynou guddeeg bëccëg di taal motoom di dem di dikk moo tax bi mu ñëwee ne am naa oto ma ne ko yàlla sa xol la la fay yàlla xol lay fay tubaab xel lay fay nit ku ñu doole lay fay waaye yàlla moo lay fay di ko baax di sunu rakk di ko baax magam it Modou Sow ak Samba Sow ak chef de village ak chef de village bu déemoo ji ñii kër Demba Anta ñëpp nañu leen ñaanal yàlla nañu leen sant ndax man de xam naa ne képp ku compter sa kilifa sa dem du yàgg ku compter sa kilifa sa dem du yàgg te nit nag yónente yi sax amoon nañu ñu leen compter kon nag nun mënuñu bañ loolu loolu nag dafa yàgg lu yàlla def la waaye yoon wi na ko yàlla àggale ci jàmm ndax Ousseynou mu ngi dox ci école bi su ndox manqué mu ngi ci dox léegi tàmbali na mu ngi dox ci courant bi su ndox mi su yoon wi paree courant bi mu ngi ci dox te yaakaar naa yàlla soxorul di yàlla dina dina ko dina ko àggale. maaleykum wa rahmatullah wa taala barakatu Samba Sow Daaru Sàmm laa dëkk noo ngi sant yàlla bu baax nag di gërëm yàlla ak yoon bi Sëriñ Tuubaa yoon wii li ko jëkk a sabab ci bàcc sàmm la jóge bàcc sàmm bu dëkk borom dëkk Daaru Sàmm moo ma yebal ma dem ci Serigne yu Mbacke ñu defal nu ñaan ma topp yoon wi di ko suivre ak si fànn bi ngir aw yoon am yàgg na waaye teewul nu am yaakaar ni li sëñ bi wax moom yàgg-yàgg dina am ñu dem ba yàgg ñu ne nañu cotiser ngir defar yoon wi cotiser xam na ni amul amul doole waaye dana bëggul foofu foofu nooy nooy ni rek ñu def fa jarub xeer maasale ko pour mën faa jaar dem yàlla mi dara teewul na ah comme ni ko wasee ni waxee at ki kuli jéey ak ki bokkam taxaw Cheikh Jéey ñoom ñi taxaw daal ni ne kat léegi dinañ leen dimbali ci yoon wi benn dërëm du ngeen ko ci fay lépp luñ ci war def dinañ ko def daal nuy wax fi nu war a jaar nu ñëw fàndin wax ko Auguste njëniw mi mu ànd ak ànd ak moom dem ci Auguste ak Ousseynou nu dem ci Auguste Auguste daal nuy nangul leen bëgg lépp may nu carrière bi ma defaroon ni yoon wi moom fu ngeen bëgg mu jaar fa rek dina fa jaar nu topp yoon wi ba ànd ak ngeen yi muy topp yoon wi fi ñu ko a jaar lépp noonu ko ko ba mu yegg mu toppatoo kayit yi ba kayit yi loolu lépp libre na am na kayit yi kayit fu war a am kayit rek am na kayit muy garab yeeg lépp am na kayit effort rek ndox ak charrière bi ak lépp lu jëlee toppatoo nañ ko ba loolu lijjanti ko mu door a ñëw nag ak ak i machine am ñoo ngi koy sant nag di ko ñaanal yàlla yëkkati ko bu baax a baax a baax a baax lépp lu mu yaakaar rek yàlla am lu ko kawe lu kawe njotto fu mu bëgg a yegg rek yàlla na ko weesu nu bu loolu jàllee nuy sant Ousseynou Sow mi sunu rakk moom dong néew fa ah moom dong nekku fa ay ay nit a defa ñoo xam ne dëkk nañu ci dëkk ba ak ci am alal am doole waaye taxul ñu geesunu moom nag xelam ak xolom lépp a ci daaru lépp lay moom xelam ak xelam mboolem dëkk amul courant hmm. boo ko digloo ci rajo am na foofu ko waxe mboole dëkk yi amul courant mu di ko lim ngir bëgg ñëpp am courant ak xolom bu laabir ak yaatoom di taal motoom di ci def essence kenn fayu ko dërëm kenn jox ko dara Ousseynou mooy dox lépp bi ñu demee ba sunu forage yàq Ousseynou nelawatul guddi neeluwul bëccëg di daw ci forage bi di ci daw ba ñi ko jëkk ñëw di liggéey taxaw taxaw dem ba yàgg ñu daw ñu dellu wutaat ñeneen ñu ñoo ñooñaa ñëw di liggéey ba forage bi bënn ba ndox maa ngi baawaan léegi ndox maa ngi baawaan léegi kon foofu gàcce ngaalaam mu wëlbatiku nekk ci yoon yi ba yoon wi taxaw nii tey kon noo ngi koy sant di ko ñaanal yàlla moom njëniw mii ndax fu mu taxaw njëniw taxaw na fa fu mu taxaw rek njëniw taxaw na fa ginnaaw bu yàlla wooyee ñoom ñaar daal man maa ngi leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal yàlla yàlla defal leen lu kawe seen njort ko gis nag kenn mënu ko fay moom itam akuk laabiram akuk yaatoom kon ñoo koy sant baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah man la Modou Dieng représentant chef de village bu Kër Demba ñu koy wax Malick Dieng moom laa représenté ak ginnaaw loolu ñu nuyu kilifa yi ñu fi fekk yëpp di leen ziar leen jox seen wàcc wàccuwaay di wax ni yoon wi moom xëy na yàgg na nekk suñu bëgg-bëgg ndax def naa depuis 2001 dañuy defoon première natt bi dem si yàlla si jéggi njaay yàlla na ko yàlla yërëm muy ko amoon yéene waaye xëy na suñ borom moo dogal lii ba fekkewu ko ah ginnaaw loolu nag ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ci kontaan bu baax ndax yoon wi képp koo xam ne rek bokk nga ci gox bi wala nga xam gox bi rek bu ñu la waxee ni yoon wi ñu ngi koy defar rek yaakaar naa di nga noyyiwaat mhm. parce que di nga jógee dakaar ñëw ba Thiès li ngay paas diggante Thiès ak dakaar li ngay paas diggante cees ak ak Kër Demba wala ak Daaru Samb mooy ëpp fuuf di nga jógee Dakar def une heure de temps Thiès Dakar mais boo ñëwee fii quatre heures de temps mun nga ko def ci yoon ndax lan am ay jafe-jafe kon lii su ñu gisee ku ñu ko defaral duñ man lu sant yàlla dañuy sant yàlla bu baax di sant suñu kilifa yi nga xam ne tamit ñoom la ñu fi fekk ndax jiite boo gis rek am na jàppal diw mbooloo mi boo demoon dëkk yi ko wër yëpp tey xëy na ñëpp am nañu yéene mais munuñ ñëpp munuñu ñëw dëkk bu nekk daanaka bu fa daanaka bu fa représentant jógee rek daanaka yóbbaale na waa dëkk ba yëpp ba tax na ñun ñuy ñuy rafetlu lu baax a baax di sant Ndiaga Cissé mi nga xam tamit moom la ñu àndal di sant Baye Samba ñoom ak Baye Mor Sow ñoom ñëpp di sant Baye Pape Sow mi Baye Ousseynou Sow nga xam ni moom wax dëgg yàlla sonn na ci trop bu dégg bëccëg mi ngi jël essence am mi ngi jël téléphone am di woote fépp foo xam ni mën na faawun dimbal pour dem woote pour yoon wi jag rek def na ko ñu sant ko ci bu baax gërëm ko di sant tam itam yi njëriñ mii nga xam ni. Mhm. moom it sonn na ci bu baax a baax. Mhm. mu am ak yombal. ginnaaw boobu tam ñu sant monsieur le ministre Augustin wax dëgg yàlla def na ci ab yomb-yomb. Mhm. ndax lépp loo xam ne rek war na ci yoon wi. yombal na ko ba laaj ñu ci dërëm te bu ko neexoon mu jafeel ko waaye jafeelu ko hmm. préfet bu ba moom tamit ndax ñuy joxe autorisation yi ci la ñu bu ñu joxewuloon autorisation yi tamit parce que seen gox la kon dina métti kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla commencé nañ ko ci bisimillahi rahmaani rahim yàlla yàlla may eggale ci ko ci alhamdulilahi rabil ba lépp luñ ci nasir rek yàlla suñ borom defal ñu ko ci lu kaw suñ jot